di Macky Sall na nga ko waxee noonu nga ko defee yaay góor Youssou maa jigéen du lër waa di malax moo yëkkati kàddu yi ni mel bàkk ci tagg ci kañ ci kii yi nga xam ne moo di président Macky Sall kor ma Faye Sall Sall ngaari alwaar lam toora démb ci wenteur ci la jàkkaarloog askanu Sénégal waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ci diir boo xam ne daal dina ciy wax li nga xam ne mooy événement yi fi jot a passé émeute yi nga xam ne jot na fi am ñi ci jot a ñàkk seen i bakkan ñi ci ñàkk seen i itam ba noppi daal di digle ne ubbi nañu ci aw lanket te danañu ko topp ba képp koo xam ne taqe nga ca mbaa jëflante ak yow ci wàllu yoon président Macky Sall woo na politiciens yi président Macky Sall woo na mboolem ki nga xam ne yaa ngi fii ci Sénégal ñu daal di mànkoo nekk benn mën a gàntal ñi nga xam ne dañoo fas yéene taxaw taxaw temm ngir dugal Sénégal ci guute indi fitna fii ci Sénégal dugal Sénégal foo xam ne kenn dootu ko fa mën a génne muy kàmb soo xam ne daf fay daal di suux ba abadan faw daayi man dapet président Macky Sall ba mu paree ci loola ci la daal di wax ne mbirum candidature nag élection yi ñu dëgmal danañ ko ci jàmm ak salaam danañ ko organiser ci lépp loo xam ne luy leer nañi la danañu fexe itam gar ci lu ñu mën ba képp ku ca war a bokk itam da ca bokk danañu dem ca assemblée nationale danañ modifier yenn article yi danañ na nag képp koo xam ne mën ngaa bokk ci élection yi ñu dëg mën la nga samp sam dana mën caa bokk man président Macky Sall képp koo xam ne yaa ngi Sénégal di ma bàyyi xel ak di ma déglu man président Macky Sall wax ak yéen gannaaw xalaat bi nga xam ne xalaat naa ko xalaat naa lu yàgg-yàgg xalaataat naa ba xalaataat ci samam xel xool naa ko xoolaat ko waaye daal bëgguma bokk damay respecté kaddu gi nga xam ne jotoon naa koo yëkkati donte ne sax sartu ndeyu réew mi muy constitution bi may na ma ko man président Macky Sall a a jaxase a gaawee loolee daf maa naqari ba mu defee boobu lépp annonce nag président Youssou Ndour ci la daal di génn di ko xamal ne ko am nañu ay autopont am nañu lépp loo xam ne infrastructure la am nañu ay ressources naturelles am nañu liggéey bu rëy boo xam ne président def nga ko fi waaye ñu ngi soog a am président boo xam ne dafay organiser élection te du ci bokk yow président Macky Sall yaay ki ko def am na ay jamono ñu toog man ak yow man ak yow kott ak suñu borom ñuy waxtaan ci lu jëm ci mbirum candidat yi troisième mandat bi nga xam ne moom nga ju wax tey jile waxoon nga ma ci kàddu yoo xam ne tey jile respecté nga ko ndax danga maa waxoon ne ma Youssou ñi nga xam ne ñoom laa fi wutu lépp lu ñu fi jot a ma def lu ko yées lu ko ëpp sax laay def loo xam ne mooy gën a rafet gën mooy gën yell ma daal di taxaw ci kanamu histoire moom président Macky Sall Youssou Ndour ko jëf nga sa wax ja gor ca wax ja def nga ko kon nag Seydi Seydi Macky nit nga gor nga te itam ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay remercier te li la xamal ni bekk nañu ci yow Kumba Gawlo Seck itam noonu la ko waxee président Macky Sall na ko kontaan nañu ci yow bekk nañu ci yow ndaxte ragg nga suñu der ba mu set wecc gën nga ñëw siggil sagal nga ñu sàll ngaari laajoo ko fii ci Sénégal waaye soxnaam sa di Marème Faye Sall moom démb vidéo bi nga xam ne jot nañu koo gis président Macky Sall def annonce bi nga xam ne jot na koo def dafa xaw a naqari Marème Faye Sall ba tax na loolee neexu ko tax na kanam ga ma nga doon saxaar ba tàng jër tax na kanam ga itam tristesse la cey seen tristesse bi rek ci Marème Faye Sall waaye ca siège APR ba nekk ca Mermoz moom ña nekkoon ba président président annoncé yëf yi le ñoom ñëpp dañ doon daanoo ay yës yi kenn ku ci nekk naan ko président lu tax nga jëf ñu jëf ji ni mel lan moo tax nga annoncé li ni mel lan moo tax nga jël cëggal guy wi le lan moo tax nga ñuy wor lan moo tax nga ñuy bàyyi ginnaaw lan moo tax nga fiy bàyyi Sénégal président yow rek la ñu xam waroo ñoo bàyyi di demee noonu le président yow rek la ñu gëm te itam yow rek la ñu min te itam Sénégal yow kot yow dong yaay ki ko mën a defar boo ko bàyyee kan moo koy téye boo ko bàyyee kan mooy defaraat Sénégal kan moo fi nekk njiitum réew soo xam ne dafay uuf aw askanam kan moo fi nekkaat njiitu réew soo xam ne dafay dëgg déglu aw askanam kan moo fi nekk njiitu réew soo xam ne dafay defar ngir aw askanam kan moo fi nekk njiitu réew soo xam ne fépp fu mu dem ci àdduna wërngal këpp askanam la fay nekk ña nekk woon ca benn bokk yaakaar ci seen ba ca Mermoz moom daanaka kenn àndu ci woon ak sagoom ki nga xam ne moom moo di papp Diouf centre bi la Pape Diouf borom génération consciente moom itam génn na daal di bravo président Macky Sall tagg ko jokko njal ko ba noppi itam ne ko nag xamal nañu la li nga jëf jëf ju rëy nga jaar nga ci porte bu mag falu ci kaw réew mi waaye itam jaaraat nga ci porte bu mag génn ci bopp réew mi Sénégal dana la binde histoire du Sénégal dana la jàngale ëllëg ci ñi nga xam ne ñoo di ndawi ëllëg yi président Macky Sall wane nga yoon bu baax bi président Macky Sall jëf nga jëf ju baax ji wax nga wax ju baax ji moom mi di Pape Diouf na président ba noppi itam xamal ko ne ko li nga jëf kenn mësu ko fee jëf yow kottu yow dong yaay ki ko fi mës a jëf waaye yow kottu yow dong itam yaay ki ko fi mës a wax ki wax ay vidéo yu Adji Raby Sarr yoo xam ne daanaka ma Adji Raby Sarr bépp kilifa goo xam ne daan naa jëflante ak moom dama ko ko daan nëbba xamul benn tur ci ñi ma daan jëflanteel ndaxte Adji Sarr xamoo ku muy waxal ëllëg ndaxte nit la koo xam ne dafay wor ab kon dëggantaan la ndaxte Adji Sarr bépp nit boo xam ne xamante naa ak moom samay nit yi nga xam ne dama daan jëflante ak ñoom Adji Sarr daf leen jël ci suuf di leen jéem a maraanaka rogo jeelu di leen jéem a envoyé ay vidéo yoo xam ne ay vidéo la yu muy sol yu muy def yu fi saay-saay di leen ko bàyyee na ci koo xam ne moom Adji Sarr daf ko daal di envoyé ay vidéo yoo xam ne daf na ci dung di fa jëf jëf yoo xam ne kenn xamul lu mu doon kookee daf ko woo muy ko mu ne ko aji saar man soxlawu ma la lijjantiwu ma la faalewu la dama lay jàppale te yàlla kottu tax kon nag bàyyil sa yi ngay def te nga tegaat ko ci suuf moom Gabriela moo di Mamour Diallo moom dafa taxawoon temb ngir jàppale aji rabi saar waaye aji saar ci koo bëggoon a xëcc ci boppam jëm koo yàqal ak a def yëf waaye Mamour Diallo wut siwul aji saar aji moo da si ko Gabriel Kane ci gàttal na aji saar nit la ko xam ne dama koo xam bu baax a baax nit la ko xam ne dafay wor nit la koo xam ne ab mbaraankat la nit la koo xam ne ci ay caaxaan kottu ci la taxaw te itamit nag caaxaanam yooyu nga xam ne ci la nekk xam na ni bu baax xam naa am na ñenn ci ay journalistes yoo xam ne xamante nañu ak Adji Raby Sarr te Françoise Hélène Gaye ak Adji Raby Sarr ku ci mel ni Bougane Gueye Dany xamante na ak Adji Raby Sarr te itamit nag du benn du ñaar gis naa ñu yëkkati ay ndimbal di ko jagleel askanu Adji Raby Sarr ci yooyu la Gabriela Kane weer na Adji Raby ba mu ne fàng dàng ci biti léppam daal di ne fàng yëf ya jeex na tàkk ci moom la ci tontu question ci kaw question moom moo di Viviane Chidid la chanteuse Viviane reine di Jolof Band Viviane Chidid mi nga xam ne mu ngi yëngal dëkk bi jamono jile ak par force moom mi di Viviane Chidid ca mariage Pawlish Mbaye xaritam doomu ndayam ca la daal di demoon ba mu fa demee nag journaliste yi nga xam ne ñoo fa jotoon a teew kenn ku ci nekk di ko posé saw question di samp aw laaj jëmale ci Viviane Chidid am na ci koo xam ne moom ab journaliste bu jigéen la dafa yëkkati benn question jàkkaarloog Viviane Chidid daal di koy wiiri wiiri ba ko tayyi ci kanamam ne ko Viviane Chidid maa ngi lay nuyu te di maa ngi lay nuyu te di la siyaar jamono ji le gis nañ ne yaa ngi def buzz nañu ne saa su nekk yaa ngi def saw liggéey yaa ngi gën a jëm ci kanam gis nañ ne saa su nekk saw bis bi ñu ngi lay gën a respecté ñu ngi lay gën a jox saw cër gis nañ ne saa su nekk itam yaa ngi def liggéey bu am solo ci wàllu musique fii ci Sénégal ak bitim réew waaye nag Viviane Chidid dafa am loo xam ne ba tey nit ñi ñu ngi koy lam-laamee ñu ngi may laaj naan ma Viviane lan moo ko teree am jëkkër ba léegi Viviane ba question ba daanoo dafa ne journaliste bi xool ma ci la xamal ni la man ba tey marié wu xamal ni la fii ma toog di wax ak yow aw ma borom kër te yëgu leen ko Aïda Samb borom Dallinkoor Viviane Chidid borom nekk deuxième des tendances gannaaw bi nga xamee ne génn na wayam boobulee jeeg ju bari di ko ci a si kaka defi yëf naan ko Aïda Samb na mu réaliser clip boobulee na mu bindee boobu lépp way def cee juum am na lu bare bari daf ko war a joyen di terewul way boobulee di Dallinkoor mu ngi toj YouTube bi jamono ji lee mu ngi def buzz ci réseau social bi gannaaw bi nga xamee ne fekk na bu Viviane Chidid par la force nga xam ne moo nekk ci youtube ba nekkoon fa première des tendances Aïda daal di koy wàcce ndànk toog ca place am ba léegi nag Viviane mu nga ca deuxième Aïda Samb jël na pee ci kilibam nga xam ne moom la tuddee dàllinkoor di ca waye ak di ca tagg ñi nga xam ne toog nañ ci seen biir néegu sëy jëf ja ju rafet ba noppi tam wane fa jikko ju rafet tax ñu tuddee leen fa ay dàllinkoor ñu ne faax ci seen biir néegu sëy Aïda Samb wayam boobu la jamono ji la moo joggati bépp way bu nekk ci biir youtube te mu fekk la fa daf laa teg ci suuf féete kaw daal di jël première des tendances Umaro ma ngay wax ak Wally Ballago ngay wax ak président Macky Sall moom Omaro gannaaw bi nga xamee ne président Macky Sall jël na aw cëggal gu yam daal di teg ci suuf li ñuy tuddee troisième mandat président Macky Sall ak ci altine ji ñu weesu la janoo ak askanu Sénégal xamal leen ni leen man président Macky Sall maay ki ko waxoon te dina ko def donte ni constitution bi sax saxtu yu réew mi may na ma ma daal di posé waat sama candidature laajaat ñaareelug mandat ñu koy tuddee ñetteelug mandat donte constitution bi may na ma ko yoonu Sénégal itam may na ma ko waaye terewul lu ma koy may may may ma kàddu ak sama ngor du ko may man président Macky Sall du ma laaj troisième mandat dinaa ko teg ci suuf donte am na ñoo xam ne bëgg nañu ma def ko loolee du tax ma daal koy def sama jàmmi réew laa gën a yittewoo ku liggéey sama réew mu jëm ci kanam laa gën a yittewoo lépp loo xam ne dafay tax sama réew jëm ci kanam laa gën a yittewoo te gis naa ni am naa ñu ma ëpp xam-xam ñoo xam ne ñoo ma ëpp gis-gis ëpp ma bëgg-bëgg ci réewum Sénégal naa leen bàyyi ñu daal di doxal gannaaw loolu le Umaro dafa daal di def ab vidéo daan ne ko son excellence yaay góor dëggantaan son excellence jërëjëf jokkonjal apaaxa yow président Macky Sall sant nañu la gërëm nañu la sa jëf ji rëy na sa wax ji nga wax itam rëy na Afrique gi yëpp nawloo nañu la jamono jile nag yaa féete kaw ñëpp jamono jile nag yaa féete kaw ñëpp loolee dañu la koy wax ku jëf ñu ne la yaa jëf te itam dangaa jëf kon nag jërëjëf Umaro ba mu ca génne lan yow Wally Ballago Seck gannaaw bu président Macky Sall demul nag yow mi nga xam ne yaay président ci mbirum waykat yi gëmmal dóor président waykat yi bul yërëm gaañi président waykat yi bul jéggal gaayi koo ci jekku gëmmal dóor sow bis bi yaa ci mën ci féete kaw sow bis bi itam li nga ciy def kenn mësu ko cee def ci internet bi laa yëgée ni takk na soxna bàyyi ci Pawlish ba daal di na mu demee ba yor ak ñaat ci la soppi ay jikkoom ba mu yoree ñaat ci la soppi aw santam tuddee boppam Pawlish santale boppam Mbaye loolee nag laa xamul façon jikko la loolee laa fan la ko jëlee man Pawlish Mbaye nawloowu ma man ak yaayam ji teguñu fenn man ak yaayam ji jéguñu faale wuñu kippe wuñu ñu te itam toppatoowuñu amul benn dërëm boo xam ne daf koy dugal ci ñun joxuñu benn cër ba bu muy takk jabar dafa wuti ji yeneen i parent mënoon nañoo yëgal yi fiile mënoon nañoo jox cër bi ñu moome waaye nag loolee duma ko ci topp moom mu ngi may woo téléphone naan ma bu ñu àdduna boole àdduna boole wuñu moom ci boppam moo ñu booleeg moom ci boppam mooy ki ñu tooñ papa ci Pawlish ma daal dina ko ci yekk musiba ak mbelengaan xamal àdduna wërngal këpp ne leen fu mu toog mu ngi naan maa ngi defal samay wajur fu mu toog mu ngi naan maa ngi lijjanti samay wajur loolee dara ci amul ma xamal leen ko bis ni ki tey Ablaye Pawlish Mbaye ci boppam defa lu ñu tuus ba tuus booloo jeex def ba ñëpp di ko wax mooy président Macky Sall Amet Thiou mooy ki yëkkati kàddu yi ni mel danseur Amet Thiou Sall na mu ko waxe woon ca wayam bi nga xam ne moom la ko jota way moom président Macky Sall gannaaw ba mu jëlee aw cëggal gu yam Amet Thiou nee na président toroxal na képp kuy noonam Amet Thiou nee na président Macky Sall daa dinay toroxal képp koo xam ne jàppoon nga ni dafay jëlaat troisième mandat daa dina leen di toroxal teg leen ci suuf daa dina leen di njuuy jëf-jëf joo xam ne Afrique gi yëpp këpp àdduna wërngal këpp ñu ngi àndandoo di ko baraawoo àdduna wërngal këpp ñu ngi àndandoo di ko tàccoo ko joxi cër ak di ko wax ni ko yow yaay gentleman dëggantaan président Macky Sall góor dëggantaan la ba ñu ko joxee essence jox ko li nga xam ne moom moo di gasoil jox ko li nga xam ne moom moo di safara ne ko taalal Sénégal dafa daal di jël li ñu tuddee ndox mu sedd guy xëpp ko ca ba mu sedd guy ba Sénégal jamono jile sedd na te itam jàmm nee na fi ñooy am na ñoo xam ne moom Asbéré Almed lañ leen jox ne leen kos leen Sénégal dañu koo kos fasaasa ci bi nga xam ne jot na ko amal ak waa la waxee li ni mel Ahmed Thiou dal na ci kaw ñi nga xam ne ñoo jàppoon ni Sénégal mën nañu koo taal noppi itam di ajal président Macky ko ne ko nag bi Sénégal waree tàkk yow bu la da ngay kos rek teg mu tàkk ndax am nga lépp am nga doole ji mënoon nga ko waaye defuloo ko dangaa teg lépp ci suuf billaahi yaay góor boo xam ne mën naa taxaw ne moo a bëgg Sénégal moo a bëgg réew mi nga xam ne moom nga jiite woon président Macky Sall Ahmed Thiou tàgg na ko aj ajal na ko ba kaw Wally Ballago Seck dana defa bës gannaaw lëmbal bi nga xam ne moom la gaa yi wax naan daf koo lëmbaloon ca doom da feccam mu fa feccoon ñu baree bari di ci indi ay polémique ñu baree bari di ca wax ñu baree bari naan Wally Ballago Seck feccam yi muy fecc dafa bizarre feccam yi muy fecc na ko teg ci suuf am na beneen fecc boo xam ne génnewaat na ko soo wattandikuwul gaa yi danañ ci waxati di ca ngëwti ngëwteeka di ca jàpp deram bi di ko ci ëllëw ëllëwlee moom Wally Ballago Seck ci wattandikuwul coow dana ko toppati fecc mu bees bi nga xam ne feccaat na ko gannaaw feccam ba mu feccoon ca doom da pare nga xam ne jamono jile mooy def doom ci Sénégal ki fi wax wax juy def doom te def bës saa su nekk mu wax lu ñu teg suñu gët moo di Cheikh Ass Barham le capitaine des marabouts Cheikh Ass Barham le phénomène Cheikh Ass Barham moom mi nga xam ne moo jommal askanu Sénégal te na ñëpp Cheikh Ass Barham yàgg naa wax sénégalais yi ne leen élection yi ñu dëgg dëgmal surprise dëggantaan maa ngi ko ciy séntu yàgg na ko wax nit ñi di ko déglu Cheikh Ass Barham nee na gisuma ci réew mi koo xam ne daf koy jiite ñëpp xam ko ki nar jiite réew mi surprise lay doon amul kenn ci ñun koo xam ne dina ko fooge mbaamu yaakaar te itam gis naa ci aw pël soo xam ne ñu ngi koy waajal ngir mu jiite fa président Macky Sall jiite woon Cheikh Asbar xam la mu waxoon agsi na gannaaw bi nga xamee ne président génn na ndànk ne bokkatuma te itamit nag gannaaw ñàkk bokkam gi lee ñu ngi ne ñi nga xam ne ñoo di waa APR danañu jël Amadou Ba jiital ko ca kanam ne ko demal doxalal Cheikh Asbar xam la mu doon junju agsi na la mu waxoon ne Sénégal ki koy jiite amul kenn ci ñun koo xam ne xam na ko maanaam surprise lay doon mbir la moo xam ne duñu ko naaneb ndox dañuy xëy rek ñu ñu kii mooy seen président te kookule ñëw ci Sénégal ba di ko jiite faatuma Fatoumata Fouta Tampi wax na yaakaaram ju taas ji mu am ci li président def nee président li mu annoncé ne du bokk ci présidentielle yi ñu dëkkmal man daf maa bett ndaxte président kenn foogu ko woon ci loolu le ginnaaw bi nga xamee ne képp koo xam ne bokk nga ci Benno Bokk Yaakaar képp koo xam ne yaa ngi ci biir APR bokkoon nga ci ñi nga xam ne doon nga dëggal ak liggéey ci sa gox ak goxaan ñi nga nekkoon di président toogaat ci bopp réew mi ñëpp ñu ngi ko doon waxal naan ko oui au cinquième au deuxième quinquennat ñëpp dañ ko doon dagaan boobale baat di ko xamal ni ko président fi nekk président réew kott yow dong yaa mën a jiite Sénégal président kott la doyloo Fatoumata Fouta Tampi nee président bi mu annoncé du bokk ci élection yi man daf maa bett ndaxte 2012 laa tas sama sëy ndax président Macky a la a kuy sàmm ay kàddoom la tàllinkoor clip ba nañu ko réaliser ba tey gaay yi ña nga coy wax ci réseau social bi Aïda Samb gaa yaa ngi koy yekk musiba ak mbelengaan ñu ngi naan ko namu ñoo doon dàllinkoor lay toroxal ci sa biir néegu ngay ëmb ba noppi di yenu liggéeyu kër gi yëpp di ngardaajoo ak di ko bu fekkee nii la nekkee dàllinkoor ñaaw na ci deru Sénégal dàllinkoor fii Sénégal niñ koy nekkee baaxul jigéen ñi dañ leen jàppe ay fobayrekaay ci biir seen néegu sëy dañ leen di def lu nekk ci biir néegu sëy dañ leen ci yekk musiba ak mbelengaan ñoom la ñu jàppe seen i mindaan ñooy yenu liggéey bi ñoo koy ngardaajoo ñoo koy engagé ba noppi itam lépp lu naqari tamit ñoom la ñu koy tekk ñoom daal ñu benn vie boo xam ne dañu koy dund ci seen biir néegu sëy lu dul togg ka yekk ka fóot ka balee ka paase ba duñu nduróoti ay nit su fekkee loolee mooy dàllinkoor fii ci Sénégal ñu bare bari jàpp nañu ne dàllinkoor yàlla bu ñu ko doon am na ñoo xam ne ñu ngi naan dëgg la ab sëy boo ci nekkee faw da ngay boo ci nekkee faw da ngay engagé lu bare bari ay naqar ak ay métit faaw nga muñ loo ko sa borom daal di sëy te yàlla kottu tax ndam dana ñëw nga daal di am li nga xam ne moom moo di say résultat te résultat yooyu la ndam kott mooy li ci topp ak lu ci mën a xew itam kili bu ay décembre boobu la gaa ko ci ak mbelengaan façon xeetu commentaire bu nekk ñu ngi ko ci deru ay décembre bi naan ko cuune dëggantaan nga ni nga woyee way wi la ak ni nga defee clip bi c'est diamétralement opposé jàngi ko defee ak ñi ko réaliser ñoom ñëpp bokk yem kenn amu ci la kenn defu ci xam ne mooy ko war ki ñu jëf jëf ji sportif bi nga xam ne ñëpp ko xam ci Sénégal doyen Abdoulaye Diaw ca rajo Futur Média dañu leeral li xam ne moom la ñu deram bi le Abdoulaye Diaw nee na man eh, information bi yëg ko dañu ma ko envoyé yëgal ma ko waaye sama mbokk yëpp maa ngi dalal seen xel te di leen xamal ni leen Abdoulaye Diaw bi ñuy wax naan dafa faatu man ak moom ñoo bokk benn tur waaye tamit nag ab ancien la kon man ak moom daanaka dañu bokk ab jëmukaay waaye bokkul ak man ba léegi man Abdoulaye Diaw maa ngi macha allah amut lenn loo xam ne dal na ma baabu tàbbi ci sama kaw kookee Abdoulaye Diaw la tudd naam waaye bokkul ak Abdoulaye Diaw mi maa ngi dalal bépp xarit bépp soppe koo xam ne sama mbokk nga ak fu waay mën a nekk itam dalal leen seen xel te man ta xam ne man Abdoulaye Diaw maa ngi dund maa ngi ñaan sama borom mu gën ma yàggal te gën maa wéral yàggal mbooleem jullit te Abdoulaye Diaw wet dina li nga xam ne moom la ñu teg ci deram bi naan dafa faa Macky Sall mi génn ci mi ne du ma laaj troisième candidature Karim Abdou Karim Gueye xurum xaq ma ca kaso ba ca ba ca Sébikotane di génn ab message am daan ne sant nañu gërëm nañu président Macky Sall cëggal guy wu baax wi nga xam ne moom la jot a jël ak lu ci mën a xew itam ak lu ko ci mën a poussé mu jël ko Sénégal gi yëpp war a taxaw tàcc ko di koy barawoo xamal ko ne ko nag jëf nga jëfi gentleman li ci des mooy peuple Sénégal bi laay waxal nañu gën a continuer seenu xeex nañu gën a ngardaajoo seenum réew nañu gën a fexe fugulu ci réew mi ak kiñ koy teg ci ay yoxoom ngir réew mi mën a jaar ci yoon réew mi itam mën a dund ci jàmm ab sénésam mën am jàmm ak salaam li nga xam ne moom moo tenaa fépp ki ko génne mooy Sabel Dieng liggéeykat bu mag bi la rakk ci Momo Dieng moom mi di Sabel Dieng génn na clip ba daal di koy tuddee fatt naa fépp wooyu mbëggeel la ma nga cay wax ak ki nga xam ne moo di borom këram di ko xamal ni ko nag ak loo mën a wuti ci mbedd mi ak jigéen ñi luñ la topp topp ak lu ñu la sañaxal sañaxal itam su guddi jotee ci sama ginnaaw gi ngay jàll su guddi jotee ci sama néeg bi ngay fanaan ak nu mu guddi guddi dinaa la xaar ak foo mën a dem itam dinaa toog di la xaar te itam fatt naa fépp amul kenn koo xam ne dina mën a ñëw fees sama place amul kenn koo xam ne ci jigéen ñi mën naa guux sam xel ba mën a daa sa sama jëmm ji ci sa xol bi la nekk moom Sabel Dieng ci biir waayam boobule message boobee la ciy lancé di xamal jigéen ñi ne leen ku ci xasa am sa borom kër na nga ko kepp fi ko war a kepp na nga fatt fépp képp ku jugee feneen nar koo fattar ñi mu mën loolee mën ko daal di tëb ba faaw Pawlish Mbaye ndax dafa am complexe ci ay wayjuram ba ba muy takk soxna dafa uti ji yeneen i wayjur ku ci mel ni biisu ngeen la jox li nga xam ne moo di may gu njëkkam ne ko yóbbul ma ko Alsaan Mbaye bu ci mën a doon kii di seen doom ji di Pawlish Mbaye ne joxuñu benn cër faale wuñu toppatoo wuñu kippe wuñu ndaxte nekk na nit koo xam ne lijjante wuñu daf ñoo tuutal daf ñoo ñàkkal xorom ñun ay waajuram joxuñu benn cër te itam dundaluñu dundaluñu ci benn anam yëkkatiwul benn dërëm jox ñu ba mu amee ñat dërëmam moom ci la daal di béro ci la daal di yoxosu nekk ci fi boppam ut yeneen i waajur ut yeneen i nit loolee nag ñi ngi ko ci xaar waaye nag na leer naa ñi ne Pawlish Mbaye ñun ay tegu ñu fenn jëf joojee mujj am nañu bare bari ñu ci samp ay laaj dafa jékki-jékki daal di xeeb ay wayjuram am complexe bu ko dugg mu daal di wuti ji weneen wayjur yoo xam ne ñoom lay jëflanteel Papichou di bongoman bi nga xam ne ñëpp ko xam ci ne daan na fi ànd ak Nabou Dash moom koy tuumaal ci réseau social bi naan dafa lekk ay tontinu jàmbur ne ko furaax daw ak moom ba pare toog fa daal di ne waa Sénégal bàyyi bàyyi Papichou ñi nga xam ne ñoom la yoreel ay natam kenn ki moom dafa daal di génn def ab live ci tiktokam di xamal Sénégal ne leen Papichou képp ku mu wax ne la man maa ko war teggil waxul dëgg dafay kàcc kàcc yu tooy xepp papisu moom ci boppam yoral na ma ñaari million ak lu topp ci ay natt yoo xam ne su ma leen ko limalee benn bu ci nekk papisu nattu ko kon nag papisu na bàyyi kàcc yi mu nekkee yéen ñi nga xam ne daf leen yónnee sama vocal man mi nga xam ne man lay waxal naan maa ko war a jox ay natt loolee dara du ci dëgg bàyyi leen li ngeen di def bàyyi leen di gëm waxi koo xam ne dafa sàcc alali jàmbur yi daw ak moom ba fara daal di fay toog lank ne dootul dellu su fii ci Sénégal Wally Ballago Seck mu ngi yëngal Sénégal clip mu mujj bi nga xam ne moom la joto def di wan gaay ne leen bokkuma ak yéen kilibam boobule xale bu jigéen ba mu ci àndal xale bu jigéen bu sexy la te rafet ba noppi itam ñoom ñaar ñu ngi ca am benn àndandoo goo xam ne ñu ngi koy àndandoo ci kilib ba ñu bare bare di leen xool di ci gis naan leen dafa romantique Wally Ballago Seck parole ya dafa romantique waaye tam kilib ba dafa àndandoog moom romantique site yi tàllal paw site internet yi yëkkati seeni micro jébbal ko bàyyi Pawlish Mbaye mu wax ñoom ñëpp ay nooxoor dëggantaan lañu du samay kàddu Ahmed Cissé moo waxee ni ni moom Cheikh Ahmed Cissé dafa amee ak sàññ ci li nga xam ne moom la site internet yi def bàyyi ba Pawlish Mbaye takk jabar ñu daal di dem jël seeni micro dékk ko wëy juróom mu daal di ko yekk musiba ak mbelengaan nee na loolee site internet yi seenub der mustarafet te tey gën naa yàqu ndax te Pawlish Mbaye seenub client la ndax saa su nekk dañuy dem ci moom di ko jël ay interview mu leen di waxal seen site yi gën a jëm ci kanam na leen leer nañu ne site internet amul fay fii ci Sénégal site internet amul publicité sit internet yi li leen di dimbali mooy sama classe gi nga xam ne dañuy toog waxal leen mu daal di jàll nit ñi seetaan ñu mën leen cee fay astuut soo xam ne moom lañ ciy fortaatoo su ëllëgatee mbaa di ngeen ñu tàllal micro ñu mën a wax site internet yi def yooyu le yëfi nooxoo dëggantaan la ñu def waroon nañoo mën a sàngu sutura Pawlish Mbaye bañ a dem ci way juram dëkk ko micro di ko yàq musiba ak mbelenga loolee rafetlu wu ma ko te itamit naka amul benn yoon boo xam ne dinaa ko rafetlu mbaa mu neex ma donte may Mbaye séquñu dara man ak moom du sama xarit ndax daf ma war worati ma comme nag daf maa war worati ma amul lenn loo xam ne mën naa ko cee jàppal tànk waaye lii dëgg mooy dëgg man Ahmed Cissé dëgg dama koy wax te fu ma fekk itam dama koy wax muy neex ak muy naqari tojati réew mi rangu mi nga xam ne ñëpp ko xam ci Sénégal publié ti na ay image yoo xam ne boo demee ci kontam ba ñëpp nañu lii ci moom rangu nekkatul surprise ci Sénégal saa bu defee lu mel ni nañu xaar mu def bis lu raw lu mel ni label Subatel Music ñi ngay bëgg a seeni kàngam yi gën a foor ci ñoom ginnaaw Bambaly Seck mi nga xam ne jot naa quitté label Subatel Music Bambaali Seck moomu le yóbbaale na ki nga xam ne moom moo Ibra Naajo Ibra Naajo génn na label Subatel musique bàyyi na Matar Diop Subatel li nga xam ne a xew moom lay faral di tëgg par dimanche soirée yooyu le saa buy masaane def bi dafay daal def Subatel musique présente waaye label boobule mujj koo bind ci affiche bi nga xam ne moom la mujjee génne loolee moo tax gars di luñutu ak a a gëstu di xool ana lan tax Ibra Naajo bindul boobu lépp label ci li nga xam ne moo di affiche am bi mujj a xool ana lan moo leen jotale ana lan nga xam ne moo di Matar Diop Subatel bàyyi ko ak label Subatel Music ki bàyyi Sénégal ñëpp di ko tàgg ka kañ moo di président Macky Sall soxu bébé chanteuse bi nga xam ne moo fi woyoon président Macky Sall xamal ko ne ko nag o fañi fañ fañ fañ sa waacaaca président Macky Sall ñu ngi lay woo kor Marème Faye Sall wayaat na ko beneen façon way goo xam ne mu ngi koy xamal ni ko ana kan moo digal bi digal ana kan kan moo la wax nga bàyyi suñu réew yow président Macky Sall soo demee kan moo yor suñu réew président Macky Sall doo ñoom te ñoom duñu yow yaa leen mën fuuf te itam yaa leen gën gore moom soxu bébé tagg na bàkk na kañ na président Macky Sall xamal ko boo xam ne jot na ko fay def ci li weesu te itam ñi ñi te itam ñi ci kanam amul kenn ci ñoom koo xam ne mën na cee def li nga ci def moom soxu bébé aj ajal na président Macky Sall ba noppi itam xamal ko ne ko mi ñàkk na koo xam ne dootu ko amaat réew mi wan nga ko ginnaaw waaye amul kenn ku mel ni yow koo xam ne mën na fee ñëw jëf fi jëf juré yi ji nga fi jote jëf ki jëf jëf yi mooy ki jënd albumu Baye Mass dix millions fukki millions la daal yëkkati jëndee ko albumu Baye Mass Baye Mass artiste bi nga xam ne gannaaw bi ma annoncé ne dafay génne albumam benn homme d'affaires moo daal di jékki yëkkati fukki millions jënd ci benn exemplaire muy lu mës a xew fii ci Sénégal première fois nit jënd ab album lu toll Modad mooy fondateuru IDK compagnie Al Amin Sarr moomee ci boppam moo yëkkati fukki tam daret wolof moo koy tuddee noonu le tubaab di ko wax dix millions yëkkati ko def ko ci benn exemplaire u albumu Baye Mass mi nga xam ne jamono jile mooy bëgg a génn bëgg dëkk bi ki nga xam ne moom moo di Malick Thiandoum moom daal dinay wax ak Ousmane mi nar a toj dëkk bi Malick Thiandoum ma ca TFM télévision Futur Média daal dinay recadrer Ousmane Sonko nee na Malick nee ki nga xam ne moo di président Macky Sall gannaaw bu am fii ci Sénégal nee na président Macky li mu def bàyyi fi troisième candidature am bi dafa bëgg suuxat jàmm fii ci Sénégal waaye nag Ousmane Sonko ñëpp xam nañu ne ñu ngi koy tooñ lu bare bare ci wàllu justice Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne ñu ngi koy xoqatal ak di ko jaay doole waaye nag génnam gu mu jigéle wax na lu ëpp loo xam ne waru koo wax ndaxte moom Ousmane Sonko su fekkente ni nii dafa bëgg a jiite réewum Sénégal ëllëg te bëgg koo tabax bëgg fa bëgg fee inauguré lu bare bare su boobaa nag dafa war a xoolaat boppam bu baax warta woo kenn ngir ñu taal dëkk bi fi fitna su Ousmane Sonko ne bis bu ma bokkul ci élection yi li ñu tuddee chaos indescriptible dana am fii ci Sénégal nee na loolee dafa ëpp Ousmane Sonko xaabaabal na nag loole waru koo wax en tant que leader politique boo xam ne yaa ngi fii ci Sénégal bëgg a jiite Sénégal en tant que leader politique boo xam ne da ngaa am say responsabilité ta xam say responsabilité war koo jëfandikoo ci kaw askanu Sénégal nee na Ousmane Sonko na deltu ginnaaw ci kàddoom googule su ma bokkul ci élection yi élection du fi am su bokkul ci élection yi réew mi dana dugg ci élection yi fitna dana yeewu fii ci Sénégal Malick Thiandoum nee na Ousmane Sonko delluwaatal ginnaaw kaddu googee nga wax duñu ci ànd ak yow donte ni sax justice mu ngi lay tooñ donte ni sax justice dëkk naa jëf ci yow jëf joo xam ne du lu rafet ki def lu rafet jëmale ko ci Mame Matar Gueye Jamra moom moo di délégué Amar moo du délégué Amar rakk ci Cheikh Amar moom muy ànd ak Wali go sek moo du délégué Amar dafa daal di yëkkati téléphone ci benn émission soo xam ne mu ngi ko doon amal daal di woo Mame Matar Gueye Jamra waxtaan ak moom ci njëkk ak teranga balago sek mu yëkkati benn woota daal di la koy jox yow di doxantoo di ci doxee say soxla muy geste boo xam ne geste bu rafet la ñu bari jàppoon le Modou délégué Amar mënul dul di dal ci seen kaw saa bu ñu dalee ci kaw Wally Ballago Seck mu yekk leen musiba ak mbelengaan tontu leen tontu yi saf sap rij leen ci seen place waaye bi yoon Modou délégué Amar dafa jëf feneen façon jëfin boo xam ne mu ngi firndeel ni moom itam nit ku nite la mu ngi firndeel ni nit na koo xam ne ku mën a maslaha la mu ngi firndeel ni itam nit na koo xam ne ginnaaw ay jàmm te tamit nag lépp loo yoo xam ne luy suuxat jàmm la daf kiy dox moom moo di délégué amat wan na ko sénégalais yi woo téléphone Mame Matar Gueye Jamra waxtaan ak moom ci njëkk ak teraanga xamal ko ne ko yow suñu bàyyi nga suñu kilifa nga suñu wëllëre nga kon nag dañu laa war a jox cër dañu laa war a jàppale ci xeex bi nga xam ne moom ngay xeex xeex bi ngay xeex ñëpp ànd nañ ci ak yow waaye tamit nag ñëpp naa dinañ la gongo ci sa liggéey bu rëy bi ngay liggéey ci fii ci Sénégal Idrissa Seck ma ngay waajal jël bopp réew mi di Sénégal Idrissa Seck ci atum 2024 dafa fas yéene nekk président fii ci Sénégal tax na képp koo xam ne dangaa bokk ci parti réew mi ëllëg ci aser gi yem ak juróom-ñetti fan ci weeru sulet moom mi di Idrissa Seck daa dinay convoqué képp ko xam ne ci biir parti réew mi nga nekk ngir ñu fa yéene defaraat seen utoogaay jekk-jekkalaat seen yëf ngir waajal li nga xam ne moom la ñu jëm ci kanam muy élection 2024 yi ñu dëgmal ki dëgmal kaso moom moo di Birame Souleye Diop Birame Souleye Diop daa dinañ koy defeere ca parquet ba moom mi nga xam ne député la ci yeewi askan bi gannaaw bu mu waxee wax joo xam ne dafa xaabaabal yekk fi musiba ak mbelengaan kii di président Macky Sall itam tuumal Alassane Ouattara loolee moo li tax ñu daal di koy jàpp fat ko ci kaso bi jamono jilee ña ngi ko defeere ca kanamu parquet ba te boo wattuwul yaari ati kaso mën na ko faa fekk ak amande bu toll ci benn million ak cinq cent mille francs CFA Biram ay mbiram boo matuwul dana gàll guusee dana ñàkk poste mairie bi soo wattandikuwul dana ñàkk itam poste député bi ngir kàddu yi nga xam ne moom la jot a yëkkati yëf yi jéggi na Sénégal ba jàll Côte d'Ivoire waa Côte di wax le wax ji mu ko ci suñu njiitu réew le wax ji mu wax laal suñu institution bi le wax ji mu wax laal suñu kilifa gi na ko recadré waat na ko teg ci yoon na jëfandikoo yoon ci ki nga xam ci ki nga xam ne moom moo di Birame Souleye Diop mi wax wax ji ni mel ki yoon tegu ci kawam ba ñu naan dana bokkam du bokk moo di Ousmane Sonko am na kilifa gu génn daal di ne am na ku ma gis ci politiciens yi moom Cheikh As Barham borom ijaaba borom yàlla nañu yàlla may yàlla moom kott moom dong lañu fi dul vaar ci loo xam ne lu ko naqari la mara bu yëpp ñoo fi waxoon ne troisième mandat président daf koy am te kenn waxu ci dëgg moom moom dong moo ci waxoon président du dem waaye bu président demul Sonko dafay dem moom Cheikh Ass Barham dëggalaat na ko nee na ma ki nga xam ne moom ma di politicien boobee ñuy wax naan dana bokkam du bokk ñi ngi koy laam-laamee waaye man Cheikh Ass Barham ma wax leen ci lu leer nañ bis ni ki tey ni ma leen waxee woon ni leen Macky Sall bu demul Sonko dina dem bu Macky Sall demee na ngeen jàpp ne Sonko du dem kon nag Macky demul Sonko dina dem Cheikh Ass Barham dalal na xelu patriote yi nee na leen dalal leen seenum xel te gis naa ko gis bu leer nañ Ousmane Sonko dana bokk ci élection yi ñu tubaab di wax ignoré na baayam noonee la ko yaa gars yi bindalee ci réseau social bi Pawlish Mbaye gannaaw bi nga xamee ne dafa takk soxna waaye soxnam soosu la coow lu bare bari mooy la ko ca topp waaye juróom bu góor moo ba muy takk soxna yëgaluñu ko tënaluñu ko ba noppi itam faale wu ñu kippi wu ñu toppatoo wu ñu baayam boobu la gannaaw bu mu defee ab ñu bare bari di ko naqarlu ak di ko ñaawlu Pawlish Mbaye dafa mel ni ku am complexe ay waajuram ba muy takki soxna dafa uti ji yeneen waajur yoo may so ñaanali soxna baayam ba loolee ko juraloon aw sànni Pawlish Mbaye coow ko topp ak li muy bari bari bari faalewu ko dafa mel ni lijjantiwu ko yëgu ko Pawlish Mbaye mu ñu gis mu daal di ànd ak soxnaam di dundul lindamiel dëggantaan Pawlish Mbaye jamono ji le ma nga cag balaxal madame gu neex ba noppi itam di bël ku moom ak soxnaam soosi le faalewul lijjantiwul kippewul coow li nga xam ne mooy li ko topp jamono ji le gannaaw fukki at ak juróom yi mu topp ci wal Walfadjri journaliste bi ñu woowee Ramatoulaye Sarr génn na groupe Walfadjri journaliste bi ñu toog moom Ramatoulaye Sarr gannaaw fukki fukki at ak juróom yoo xam ne jot na ko liggéey ca Walfadjri ca loxoy Sidi Lamine Niass ak groupe Walfadjri léegi nag Ramatoulaye Sall génn na fa lem na takk na ay dëbësam ba mu jekk te taaru mu daal di koy teg maanaam RTS la ñu koy sént jamono ji le bu sukkandikoo ci source bu leer bi nga xam ne moo ñu jox bileb xibaar mu ngi ñuy xamal ne ñu Ramatoulaye Sall gannaaw ba mu génnee Walfadjri radio télévision fa sénégalais foofee la daal di dem teg fa ay bagage am teg fa ay valise am fas yéene leen a liggéeyal li ki nga xam ne moo de Adja National moom Adja Dame Dieng ba ca Leral ma nga ca màkkatal mukarama gis nañ ko mu génn ay kilisa yoo xam ne ay nataal yoo xam ne bi mu ngi ci a moom la jot a génne moom waykat bi le moom mi nga xam ne politicien la queen bi seen nañu ko mu daal di génn kilisa yoo xam ne ma nga ca sañse robb bu rouge danger ba noppi itam pooje ne fang dang ci biti kenn ku ci nekk ca commentaire ak na nga gisee li nga xam ne mooy robb ba mu sol ñu baree bari di ko ca jaajëfal naan ko queen bis tu es très ñeneen ñi naan ko queen kaay ma takk la ñeneen ñi naan ko queen bi del sàng sa cër yi tuuti kenn ku ci nekk ak la nga ko ca yëg commentaire yi bépp commentaire boo ci ak la nga xam ne moom la gisee queen bis ak robb ba mu sol waaye ak lu ci mën a xew itam jamono jile moom la site internet yu bare bare bari xëy bind seeni article daal di cay taf photo Queen Biz yooyu le robe bu rouge danger boobu nga xam ne moom la jot a sañse wone ci ay pojam wone te itamit nag ne nit ku jekk la nit ku taaru la tax na kenn ku ci nekk naan ko Queen Biz kenn mënu muñ ku la gis rek dafay daal di bëgg ci saasa ñëw jël la def la aw soxnaam aju usa moom ma ngay waajal gannaaw ba mu génne madame Bonheur mu def buzz mu génne monsieur Bonheur mu defati buzz aju usa doom ci père usa ma ngay waajal di génne beneen single namm nañu ko jamono jile saa bu génne way dana bokk ci it yi nga xam ne nit ñi dañu koy bàyyi xel dana bokk ci tendance yi nga xam ne dañu koy yóbbu ci tiktok dana bokk ci way yi nga xam ne xale yu jigéen ñi dañu koy boole ci seen yëf saa su nekk aji usa ma ngay waajalaat beneen bu gën a saf te gën a tar te gën a neex fileeki fan dana ko daal ne fang dang ñëpp jot ci boobu lépp single prix Socrates bi nga xam ne moom la Sadio Mané jëlo prix Socrates boobule ñu ngi koy waajal beneen joueuse boo xam ne joueuse africaine la ab nigérienne la moom mi nga xam ne itam gesetlu nañu ne li Sadio Mané di def ci lu baax li Sadio Mané di def ci wàllu social li jo Sadio jot a def fii ci Sénégal def ko ci àdduna wërngal këpp ba ñëpp rafetlu ko yëkkati prix Socrates jëbbal ko Sadio Mané nantio national bi le boo wattuwul joueuse na nigérienne boobu le dana ko daal jël moom itam ndax ay jëfam yu baax ci wàllu social ni muy ay doomi aadama ni muy ñi nga xam ne ay néew di doole lañu loolee tax na soo wattuwul dana wuutu Sadio Mané ci biir bi nga xam la ñu yëkkati woon daal di ko koy jëbbal ñi war a boppam mooy ki ko wax nee na président Macky Sall teg ji mu teg fi suuf troisième candidature mbile bu fekkee kenn am na ci ndam mooy ki ci jiitu président Macky xam ne ñu ngi koy topp naan pression bi moo bari ci kawam na ñu bare bare ñu ko deltuloo ginnaaw waaye ak lu ci mën a xew itam président li mu jëf jëf ju rafet la cëggal guy wi mu jëf cëggal guy wu baax la te lii itam dafay sàmm suñu démocratie lii itam dafay gën a ñoŋal suñu image te lii président Macky Sall jëf na ko ci anam boo xam ne jëfin bu rafet la ko ci anam boo xam ne ñun ñëpp ci war d'accord ñun ñëpp war jug tàcc ko ba noppi itam ne ko jërëjëf jokkoo njal sa jëf ci rafet na sa jëf ci rëy na lii daal ñëpp ci war a kontaan àdduna wërngal këpp dañoo war a àndandoo rafetlu li nga xam ne moo xew ci président ma Sall fi mu nekk ni àcc na Sénégal ba ci kaw a kaw waaye lépp lu waaye di wax itam war ngaa mën a wax jërëjëf soog caa teg leneen moom Bouba Ndour dafa jàpp ne président Macky Sall jëf ji mu jëf amul leneen lu ci waaye a teg lu lu dul ko jokkoo njal apaaxa lu dul ne ko ajaaraama lu dul nag xamal ko ne ko président li nga jëf amul benn président boo xam ne fii ci Afrique wërngal këpp mës na ko fee jëf mbaa mu wax ko fi